mes internautes de Kewlo TV tay ñu ngi fi fassiyene waxtaan ak euh, Nina Penda Faye journaliste et activiste ci affaire Pape Alignan. bonjour euh, Nina. bonjour ma ngi leen di nuyu di nuyu sen euh, internet yi ñuy sétane yëpp. pouvez vous présenter. Ma ngi tudd Nina Penda Faye journaliste la ni ko activiste féministe. di yëngatu ci lépp li nga xamante ne moom mooy àq ak yelleefu jigéen ñi ak ndaw ñi. Euh, nekk taskatu xibaar depuis ñaar fukki at ci Sénégal euh, njëkkee rajo def ci fukki at ak ñett euh, def télévision depuis fukki at ak juróomi at ak ñeent pardon juróomi ak ñeent ñu ngi yëngatu ci mbirum média di ci def suñu wàll di ci bay suñu wàll. jaar bi am na solo léegi lan la ñuy reprocher Pape Alé Niang en fait lan lañ ko lan moo tax ñu jàpp. waaw dañuy wax ne Pape Alé dafa génne xibaar yoo xamante ne war ko woon génne ah, loo xamante ne mën na yëngal réew mi moom la ñuy wax euh, sécurité nationale ak secret défense mooy maanaam loo xamante ne dafa waroon a des ci benn béréb ah, mu génne ko tas ko loolu lañ koy loolu lañ koy euh, toppee liñ koy toppee nekk loo xamante dañu ne xëy na loolu mënoon na yëngal réew mi wala mu am lu mu joxase si li nga xamante ne moom mooy euh, armée Sénégal Euh, loolu moo tax ci li ñu wax ñoom loolu lañ ko jàppee ñun nag journaliste yi ah, ñu nga xam ne ñoom ñooy ay ñun ñooy ay ndaa naataangoom ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay avocat gis ngeen ne ci média yi génne nañ li nga xamante ne moom mooy la vérité des faits mooy maanaam li nga xam ne mooy lii dëgg Euh, te jiital ci mooy avant moom mu koy génne li ñuy wax ne moom la tas xibaar yi mu tas mu ngi woon ci internet bi ba pare lool loo xamante ne liggéeyu avocat yi la mais ñun journaliste ci Sénégal xam nañ ne mënuñu ni wax ni journaliste d'investigation la mooy koo xamante ne bu jotee xibaar da koy càmbar seet ko seetantal ko mu nekkee njëriñu askan wi mu génnee ko ak lu mu ko mënee lu ci mën a xew ak lépp loo xamante ne moom moo ciy conséquence bi mën a dal ci journaliste bi li ñuy seet mooy sénégalais yi war nañ xam lii lan la information bi lu mu doon xibaar bi lu mu doon pour que ku si nekk nga seet ci li nga xamante ne moom moo la doy en conséquence nga jël si décision bu fekkee ne nag dafa génnee xibaar yi mel noonu ñu jàpp ko si journaliste d'investigation la mënul yem ci rek li nga xamante ne moom gis ci kaw demuñu set la nek ci biir comme nak liguey liguey journaliste d'investigation moy dem set gas ko gasat ko set ko setantal ko buñ ko ci jappé dañuy né Sénégal euh, ci li nga xamante ne moom la ñu xalaat ne euh, ay djégo yu ñu dox ci lii liberté presse ak ak yelleefu journaliste mënuñu tok 2022

kon amna lu changer ci mbir mi loo xamante ñun ñëpp dañ koy ñaawlu parce que xalaatoon nañ ne 2022 président bi fi nekk nga xamantene depuis l'an 2000 ba président Ablaye Wade yéegee moom mi ngi ci nguur gi traversé époque Ablaye Wade ba mu jeex ba ñu fal ko foogoon nañ ne moom bu ñëwee euh, benn journaliste duñ ko tëj ci kaso te moom dafa joxe woon ay garantie joxe kàddoom ne ci nguuram benn journaliste duñ ko dugal kaso te nag malheureusement eh, ci nguuram dugal nañ journaliste kasso te kas journaliste bi ñu dugal kasso Pape Alé la te gis nañu Pape Alé Niang li mu liggéey diggante l'an 2009 2008 ba l'an 2012 2013 ba ñëpp di wax ne dafa nekk opposition Macky Sall la faral booba candidat la eh, ñu koy waxal lu ne waa PDS di ko menacer loolu fi la ñu fekk ndax loolu ñu on est témoin donc amna lu changé ci mbir mi loo xamante ñun daf ñuy jaaxal té lool motax ñuy wax né tay Sénégal journaliste bo mënti nekk lanceur d'alerte bo mënti nekk tu es en danger parce que bu fekkee Pape Alé Niang la ñu donc euh, yeen vous vous sentez en danger lool mo waral ngeen juk fassiyene jappalé pap euh, Pape parce que ñepp vous êtes en sursis vous vous sentez comme ça. mais tous les journalistes journalistes yëpp ñu ngi ñu ngi ñu ngi seen bakkan a ngi si xottu gerte ñu ngi gis lo xamante mo suñu ko won gis té lo xamante képp ku journaliste war na la tiital parce que bu féké né da nga nekk journaliste d'investigation wala sax bo nekk journaliste d'investigation euh ce euh, liguey mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi nekk en en sursis parce que dañ lay téré nga génnee yenn xibaar yi kon jaratul ngay nekk journaliste te ñun nag principe bi moo tax ñun ñoom ñu jug parce que xalaat nañu ne te conviction la lu ñu gëm la loo xamante ne dañu ko yàgg di xeex ne journaliste place am nekkul kaso place journaliste yi ci rédaction yi la loolu mooy li tax ñun ñëpp ñu jug di ko xeex di xeex li nga xamante ne moom mooy li ñu teg ci ndoddam te ñun ñu yaakaar ne boo ko seetee di ko càmbar ak di ko seetantal benn par benn Pape Alé Niang warul woon tëdd kaso benn fan. léegi bu ñu xoolee tamit euh, ginnaaw bi ministre bi génnee tamit nee na képp ko waxoon ci problème boobu noonu di nga amaat di nga di nga am ay soucis képp koo xam ne republier nga li Pape Alé wax et tout donc est-ce que combat bi day yem ci Pape Alé Niang rek est-ce que du nekk combat de tous les journalistes en général. xeexu journaliste bépp journaliste sénégalais la war te man dama tàmm di wax euh, ba di def ñun ñëpp ànd ak CAP coordination association de presse ngir ñu bàyyi pap mu ñibbi këram mooy journaliste nga ci rédaction nga technicien nga caméra nga preneur de son ñëpp dañoo war hommes et femmes de médias góor ak jigéen nekkul rek journaliste mais ñëpp ñi nga xam ne sax ay techniciens lañu di ci liggéey ñi yor site internet yi ñëpp dañoo war a jug nekk benn say xàccandoo dóorandoo parce que li ñuy li dal Pape Alé mën na ma dal mën na dal beneen journaliste te nag de xoddee ko bala ngaa lakkale balaa ñuy yegg foofu je pense que journaliste ñoo war a ñun ñëpp ñu jug xeex parce que loo xeexul doo ko am boo xeexul say àq ak say yelleef doo ko am boo xeexul dañu yàgg di la noot te journaliste bu ñu xeexul jug revendiquer seeni droit jug si ci fulla ak ci fayda ñëpp ñu boolandoo nekk benn parce que bu ñu demee bi nga xamante ne tey euh, carte de presse nationale plus de 3000 journalistes jot nañu seen carte mille journalistes yooyu anañu il dañ dañ leen war a gis di leen sentir te ñu xam ne ñoom ñëpp ku si jóg di ñëw di xeex ngir ñu génne Pape Alé ci kaso war nga ko def ku ci jugul di xeex pour ñu génne Pape Alé kaso war nga ko def donc journaliste yëpp war a nekk benn say boole suñu doole ñun ñëpp ñu xam ne lii dal Pape Alé mën nañu dal te bu ñu demee ba gis suñu mag ñi suñu aîné yi doyen Baba Diop ak yeneen journaliste yoo xamante ne ñoom ñoo ñu mag fuuf njëkkuñu ci métier bi ñu ñëw taxaw ci marché bi ne nañu bàyyi Pape Alé suñu xel day dal ndax ñooñu bu fekkoon ne li ñuy wax Pape Alé dafa nekk li mu def wala ñu xalaat ne am na ci lenn loo xam ne sax dañ koy xaw a xinimi eh, seet ndax am na wala amul kon duñ ñëw ca marché ba duñu bind duñu duñu duñu duñu ne nañ ko bàyyi. xeex baax na mais lan mooy seen plan d'action yéen nan ngeen fas yéene derulee seen xeex bi comment est que vous comptez plan d'action bi commencé nañ ko yag na ndax buñu ñu biñ ñu nee dañ ko denc déjà mi ngi mi ngi kaso gis ngeen ni journaliste yi def nañu def nañu déclaration ànd si ak CAP organisation de presse yep def réunion ñu jóge ci loolu ñu def conseil des médias mercredi euh, jóge ci loolu def marche jóge ci loolu ñaari fan yu nekk da ngeen di gis ay articles yu génn

dara jaaru ci yoon léegi nag bu ministre bi menacé journaliste ne li Pape Alé bu ko génnee bu ko kenn génnaatee xalaat nañu ne ministre de du loolu mooy discours bi mu war a tenir parce que bu fekkee ne da nga njaboote journaliste da nga war a xam métier journaliste nan lay doxee ba pare nag nga waxtaan ak journaliste yi parce que mënuloo nekk seen ministre de tutelle ba pare taxawee fee mel ni ku nekk armée li nga wax rek moom mooy am keneen amul droit wax leneen keneen war amul droit defee neneen du noonu te dañuy rappeler waat suñu ministre de tutelle ne lii nga xamante ne moom mooy spéc moom avocat la xam na lan mooy àq ak yelef doomu aadama mais au delà de ça xam na lan mooy métier journaliste donc mënuñu euh, di ko di accepter nangu mu jël position ah, gouvernement jël position partisan pour que ne ah beneen journaliste bo bu guéné li pap Alé guéné ñu tëj la kasso kon xalaat na né journaliste yëpp dinañ dem kasso donc yéen projeté woo leen def ben projet de loi bo leen dugal assemblée nationale pour protéger les journalistes vu que seen ben naataangoo mu ngi foofu euh, di pap jibril Fall. Euh, pap jibril Fall kessé ci député mënul trouver solution. parce que assemblée nationale député yi ñu fal ñi fa nekk ñëpp ñoom ñoo war a lëkkaloo ci li nga xamante ne moom mooy ni ñuy voté loi bi mais dama bëgg a fàttali ne ci ay fan yu néew dégg nañ fi benn avocat boo xamante ne député la woon assemblée nationale mu ne moom ci ñi bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo xeex pour ñu bañ a voté loi bi nga xam ne moom mooy dépénaliser délit de presse yi ci la bokk donc déjà ci assemblée nationale bi am a si ñoo de bu pour ñu dépénaliser délits de presse pour nous déprisonnaliser chaque jour nous ñi ngi def lu pour que loi soit ñu bañ ko voter léegi les journalistes, les bi journalistes yépp ont ak organisation yëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ay organisation de médias ñu mën a xeex loolu parce que boo xeexul say àq ak sa yelef encore une fois doo ko am loo xeexul doo ci jot te loo jot ba pare il faut ngay xeex chaque jour pour nga préserver ak yi parce que mën nga ko ñàkk saa boo yeewoo mën nga xalaat ne lii ñu amoon mu nekk ati ak yi mën nañ koo ñàkk waaw comme ci li nga duggee noonu est-ce que tamit certains politiciens nekkuñu pour de museler la presse maanaam noppiloo presse bi parce que nekkul ci seen ay intérêt vu que nous nga benn am nga benn avocat boo xamante si ni day xeex à ce que ñu bañ a dépénaliser. presse bi dafa am ñaar yu ci am bu fekkee ne yow da nga nangu mu am politicien boo xamante ne moom financer sa organe de presse lim la wax ngay def loolu ngay def ndax fim la xooloo ngay xol fi lay dem lo ngay dem lolu problème bu fondamental la par rapport ak financement wu organe de presse yi kan mo nek ci organe de presse ak ku koy financer lolu ben la ñaarel bi moy je pense que buñ ne yow bo choisir métier journaliste da nga wara a ne journaliste bima nek dama am liberté choix ci limay def liberté fan lay djublu ak lan lay def bu fekkee ne nag dafa am ñoo xamante ne tey dañoo ŋànk presse bi te ñoom seen loxo mu ngi ciy dugg te war a ci dugg parce que seen intérêt moo tax ñu investir dans la presse pour que seen kàddu ñu koy dégg pour que ñoom seen politique ñu koy doxal loolu effectivement dafay contribuer ci li nga xamante ne moom mooy museler la presse parce que boo nekkee journaliste amuloo liberté wu traité information ni nga ko bëgg traité gis nañ fi benn organe de presse boo xamante ne patron bi dafa xëy ne bu fi kenn wax waxu Pape Alé Niang léegi loolu pour lan pour lan def seen liggéey ni mu waree léegi nag yow yaay choisir ne da ngay bàyyi parce que principe la mënuma nekk journaliste ba pare nga di ma wax fii ngay xoole fii ngay defee nii ngay doxalee ma bàyyi wala man ma nangu nga noot ma ma continuer def loo ma wax defal loolu laay def loo ma ne bàyyil ma bàyyi te defe naa ne loolu taxul ñuy wax métier journaliste. Quel est votre mot de la fin? On est presque à la fin de notre merci ñu ngi leen di gëme gërëm di leen sant di leen félicité ci liggéey bi ngeen di def ba pare di wax suñu kàddu bi ñuy jeexale mooy nañu bàyyi Pape Alé mu ñibbi këram place journaliste du ci kaso wante ci rédaction yi la nañ ko bàyyi mu génn ñibbi toog ak njabootam continuer liggéey liggéeyam ndax journaliste yi ñuy contribuer ci li nga xamante ne moom mooy eh, développement réew mi contribuer ci li nga xamantene mom moy démocratie réew condition journaliste ak sen liberté moy woné réew mi ñu nek démocratie bi fan la toll ak nan lañ koy naté nañu bàyyi Pape Alé Niang mu ñibbi place am nekkul kaso chers internautes li lañ leen indi loon ak Nina Penda fay donc à très bientôt ci beneen interview